Manga Ngom maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay maa ngi lay nga nekk euh, porte-parole bu collectif pour la défense et la sauvegarde euh, de l'hôpital euh, Aristide Le Dantec des intérêts plutôt tey jii seen collectif bi naka la juddoo exactement. waaw sunu collectif bi. juddu na gannaaw bi ñu njëkkoon a créé benn collectif boo xam ne da doon euh, regrouper syndicat hôpital mais dañoo dem ba ci biir xam ne pour am na ñoo xam ne duñu gis seen bopp ci wàllum syndicalisme ñu ne nañ teg syndicat yi fële te créé collectif boo xam ne day boole personnel bi yëpp képp koo xam ne bëgg ngaa dugg rek nga dugg ñu teg syndicat yi fële pour défendre intérêt wu personnel bi pour défendre euh, projet d'établissement bi pour défendre aussi les malades moo taxoon ñu créé ko ne léegi nañ àndandoo ñun ñëpp xeex li nga xam ne mooy yooyu ma la limal. voilà kon si euh, bi ñuy jaay trois hectares yi si la collectif bi juddu wala. waa juddu na ba nga xam ne président jël na décision ne day reconstruire ba mu waxee ne day reconstruire rek ca la juddu donc boobu fekk na mu tudd aussi njaayum trois hectares yi. Euh, tey jii lan ngeen xalaat euh, ci réfectionnement wala sax tabaxaat li nga xam ne mooy hôpital Aristide le le Dantec yéen d'accord ngeen si waaw waaye hôpital bi moom xam nañ ne dañ koo war a tabaxaat ànd nañ ci président ba mu ne daf koy tabaxaat dañ koo rafetlu parce que xam nañ ne hôpital dañ koo war a tabaxaat boo ne da tabaxaat lan nga war a tabaxal nit ñi da koy wax nee woon na leen dem leen ngeen wax ak yi ba ñëpp juboo waaye juboo googu muy wax ak acteurs yi juboo gi amagu donc ñoom ñu ngi ci précipitation ne dañuy reconstruire jóge ci projet bi nga xam ne moom lañ njëkk amoon dem ci beneen projet ne day jaay trois hectares yi loolu moo indi coow lii ngay dégg rek. si njaayum trois hectares yi mais euh, est-ce que euh, autorités yi avant ñuy euh, wax waxu jaay trois hectares yi consulter nañ yéen ñi nga xam ni yéenay liggéeye foofu ci hôpital bi. moom laa la président bi mu jëlee décision daf leen wax ne dem leen ngeen wax ak personnel bi. Mhm. biñ ñëwee nag biñ ñëwee ñoom effectivement wax nañ njaayam trois hectares bi wax construction ñu ne leen da ngeen di ñëw toog ñu xool li nga xam ne moom lañ bëgg a reconstruire d' abord avant ñuy valider dara ñu dem séminaire le vingt huit ak le vingt neuf mai bi ñu demee ci séminaire bi xam nga séminaire bi conclusion yi lan la wax rapport bi dafa ne lii muñ lii muñ mu ñu bëgg a tabaxal du hôpital waaye polyclinique la ñu ne ko lii bëgguñu ko ñu ne nañ nañ nañ nañ ci def ay input mooy nañ ci nañ ko améliorer ñu defee loolu avant ñoo noppi ñoom dellu si wu ñëw pour ñu valider mais ñoom dañoo tëb tëb dem ne loolu la ñuy construire ne loolu la ñuy fekk na ñu ne lañ delluwaat ci suñu projet d'établissement bi nga xam ne mooy bu njëkk bi nga xam ne moom lañ defoon président dem fu ne di ko jaay di ko bàkkoo donc mu jël loolu teg ko fu parce que xam ne boobu dana occuper 4 hectares yi te ñoom dañoo soxla suuf problème bi foofu la juddoo mooy lu tax ñu war jaay trois hectares hôpital Aris la xel yóbbu leen ca yóbbu leen ca aéroport loolu xam nga ne da nga am suuf boo xam ne mën ngaa prévoir loolu mais bu yeneen bu yeneen xewee mais Dantec Dantec bi nga xam ne mooy nekk au sommet de la pyramide képp koo xam ne am nga xam-xam jàng nga fii lañ lay former mais kon suufu Dantec kenn waru koo jaay suuf si rek bu de moom xam nañ ne bu doon suuf suuf kese rek war nga ci wax waxatuma la muy suufu hôpital suufu hôpital kenn mënut a nangu suufu hôpital bu ñuy jaay foofu la coow li nekk mooy dañu ne président na delluwaat d'abord ci suñu projet d'établissement bu njëkk ba boobu architecte baa ngi fi defar na ko moo gën a rafet moo gën a yànji fuuf étage yi ñu ñu ñuy tegal boobu am na promoteur sénégalais boo xam ne gis nañ ko ba promoteur bi dem na ba def projet bi dugal ko ba ñu financé ko ba mu boucler financement bi xaalis baa ngi taxaw moom lay xaar bu tabax ñu jékki-jékki dégg moom président mu ñëwaat indil ñu ay espagnol yoo xam ne la ñuy indil ay yoo xam ne dañeen ba sixième ñun ñu am fii ay yoo xam ne ascenseur benn premier premier premier la nekk yow boo mënoo def entretien ascenseur bi ñu indi la loo xam ne sixième la jëm te xam nañ ressources yi nga xam ne hôpital Aristide moom parce que hôpital Aristide Dantec lu tax mënul def yenn ressources que hôpitalu askan wi la doo fi wër xaalis bu bari da ngay fexe ba ñu bëgg faj boo ñëwee fii dugg fi da ngay ñoo ay malade yoo xam ne jooy rek leen di dese parce que xam nañ dañuy jóge fii am na ñoo xam ne sax tenté nañ ko dem beneen hôpital bu ñu waroon fi fii cent cent cinquante wala deux cent dañuy dem ñu leen di laaj ay six cent mille ñuy ñaxtu xam nga ñooñu leen di dese mooy dem tëdd seen kër yi banku rek xaar yàlla donc loolu mooy catastrophe bi donc président ñu koy wax ne président il n'est pas trop tard na teg loolu na arrière financement baa ngi fi projet d'établissement baa ngi bu dee wér gi moo ko soxal la ñuy wax bu dee que question la aussi bu dee wér gi yaram ko soxal na jël projet d' établissement bi am na fi ñu am hôpital boo xam naa peut être dañ jàpp ne ñu yelloowuñu leen li ñu ku ñuul wala africain yelloo parce que boo gisee hôpital boobu bu ñu ko tegee boo demee ci sous région bi doo gis lu ni mel xanaa dañ koo yelloowul ba ñuy jaay suñu trois hectares di ko jox di jox géej gi ñeneen ak ñeneen di ñu tabaxale étage vraiment c' est un recul boo xamante ne ci wàllum santé c' est tellement grave lu tax ma ne c'est tellement grave mooy nañ dem ci wàllum formation d'abord boo jëlee formation fii la ñuy former que ça soit médecin nangam mais dama ciy lim benn service spécial boo xam ne doo dugg fenn ci ci ci ci Sénégal ñu ne fan lañ leen former mooy anesthésie réanimation ñoom doy ñu déjà képp koo xam ne ñu lay nelawal wala ñu lay yee ñi koy def fii lañ ne léegi yow nga jël loolu chirurgie nekk fi uro nekk fi cardio ba nga xam boo fa demee spécial nit bu te doon fii feebar nga ne koo bëgg soxla soxla mën nga ko fee am mais yow nga jël école école bu nga xam ne moo raw ci kii su région bi marocain yi di fi ñëw guinéen yi di fi ñëw tunisien yi di fi ñëw burkinabé yi di fi ñëw ñëpp di fi ñëw di fi jàngee yow nga jël loolu nga bëggoon a saxal mooy bu defee lool moom na jàpp ni ci santé moom mel na santé wu réew mi te santé a fee def loo xam ne danañ ko baax lool mu naan maa ngi tabax lii maa ngi tabax loolu lépp zéro lay mujj doon na xam ne bu defee lii muy moom santé wu kii askan wi sax xam nañ ko askan waa ngi jóg di ko fekk. kon yéen déjà euh, d'accordu leen ci architecture bi nga xam ne état moom la indi ak tamit ci jaay bi nga xam ne moom la bëgg a jaay euh, trois hectares pour mën a euh, tabaxaat la Dantec mais yéen si seen plan bi ngeen teg ak financement kan moo war a financer yéen seen projet bi nga xam ni teg ngeen ko te loolu ngeen bëgg. projet boobu financement bi. Hmm. ministère xam na ko présidence xam na ko. directeur Babacar Thiandoum yi xam ñoom ñëpp a si signé parce que xam nga ñooñu bi ñu signé moom du mën a am financement c'est parce que dafa am ñoom accord moo tax mu mën koo dugal ba am financement léegi un sénégalais boo xam ne di de son nom fexe ba góorgóor ba am loolu bëgg ñoo tabax parce que bu doon bu doon lu muy tabax gënaluñu mais duñu ànd duñ ko waxan ah bu doon lu muy tabax gënaluñu bu ta bu bu toogoon place espagnol yi espagnol yi toog place am espagnol yi ñuy àndal parce que xam nañu aussi yëf yi moom ñëpp ñëpp a bokk bu wàllum tabax nañ ñu yëf yi demee mais c'est parce que li muy def dafa gën looloo tax ñuy wax mais bu doon place espagnol espagnol yi moom moom place am bi espagnol la ñuy jël bàyyi ko mais c'est parce que moom li mu a a tabax donc soxlawul jaay suuf jaay gi moom xam nga lan la ñoom dañoo bëgg littoral rek bëgg koo jaay amul beneen justificatif bu ñu ci a wax suufu askan moom askan wi moom ñu ngi ñëw pour xeexal ko seen bopp dañ leen ñun nag lu ñuy wax mooy buñ ñu tabaxal nañ ñu tabaxal ab hôpital centre mais pas polyclinique loolu lañ leen wax li ñu bëgg a tabaxal dara baaxu ci dèjà ñëw nañ andi ko acteurs yi ñëpp toog nañ xool xam nañ ni riba nee ko nañ ko nañ delluwaat ci suñu projet bu njëkk ba kon président bu dee réew mee ko fal te mu xam ne baatu réew mi réew mi lay déglu parce que délégation de pouvoir la mais le vrai pouvoir appartient au peuple peuple bi buñ la ne nii lañ bëgg bëgguñu li mais nag lu gën a yomb nga bàyyi loolu te defal peuple bi liñ bëgg. tey jii euh, projet bi ñaata temps lay dure pour ñu tabaxaat hôpital bi. projet bi est-ce yàgg wala du yàgg. projet bi président nee na dix huit lay def. dix dix huit mois la war a def léegi ñun boo gisee ci 18 mois yi sax amuñu problème par rapport à ça mais ci biir 18 mois bi nañ wax ci sooru personnel bi mooy personnel bi fi nekk ñu xam parce que nee nañ dañ dañ leen di redéployer bu ñu leen di redéployer ñu bind ay kayit yu leer yoo xam ne moo leen di lié ak ñoom fa ñu jëm wala mu lié leen ak ministère mais lii xew fii mooy dañ laa naan chef de service fa kañ la chef de service di wut fu muy fu mu jëm ministère nekk fi directeur nekk fi wut leen foo leen bokkatu mooy dañuy def sabotage de tel que hôpital bi du doxati ñu génnee nit ñi sans pour président def décret bu tëj hôpital bi ministère bi du def du def arrêté ngir ñu ay manigance lañ nekkee pour nasaxal ko dàq nit ñu génn ndànk ngir ñu mën a jot ci suuf si loolu fi am loolu c'est dommage mais nañu wax ci sooru personnel bi ñu xam ñoom seen ëllëg ku nekk boo demee est-ce que 18 mois yi nga xam ne dañ koy toog dañ leen koy fay ba 18 mois yi jeex wala nan lay ak kan mooy fay est-ce que fa nga jëm ci district wala hôpital ba nga jëm ñoo lay fay est-ce que ministère mooy fay parce que Dantec moom bu xasee dugg foofu Dantec mën a tut a fay kenn. donc da nga bëgg a wax ni personnel bi lu ci ëpp euh, dañuy dem chômage. mais effectivement personnel bi fa lay jëm. buñ toogee ba ba ba jamono jii may wax ak yéen te ñoom bindaguñu dara wax ci personnel bi fan la ne xam na ne ñu ngi fi am na ñoo xam ne sax commencé nañoo toog parce que dañoo découragé si cause bi fi ne ñoom xamatuñu fan la war a xamatuñu a def donc ki nga xam ne da nga koo liggéeyoo ay liggéey loo ay attaques yi attaqué tëb a tëb rek naan ay jaxase yëf yi jaxase carte yi ba waaye leen nit ñi bi bindaloo leen benn contrat mais ministère bu ñëwoon fii day woo acteurs yi ñu toog mu ne leen lay demee ku nekk sa salaire danañ ko conserver ak yi nga xam ne danañ conserver nii lañ koy fayee xaalis baa ngi nii d'autant plus promoteur bi ma leen di wax moom nee na na jël en charge loolee nga xam ne moom la ñuy wax mën na jël wàllum paire yooyu mais ki wax loolu te yow nga war a def yow waxoo lu ñu mel kooku wax loolu yore xaalis yow nga donc li ñuy def sabotage la mooy dañoo bëgg a yóbbu personnel bi chômage ñu dem toogi seen kër loolu moom jàpp naa ne askan wi kenn du ko nag ba def ko mais na mais askan redéploiement service yi fan la toll est que am na avancé euh, fan fan la toll exactement parce que léegi ñu tëj hôpital bi xam nga fi mu toll mooy cacophonie mooy am na ñoo xam ne ci sabotage la ñuy def ñi nga xam ne dañoo ànd ak moom parce que dañuy ñëw di démonter matériel opital bi directeur di bind ay nit ñuy génnee matériel bi kenn xamul fu ñu ko jëm parce que dara wóoru ci fu ñuy yóbbu matériel bi am na ñoo xamante ne dem nañ fañ leen waxoon foofu la ñu war a dem mais xejuñu fa par exemple boo demee boo boo jëlee oncopédiatrie mooy ñi nga xam ne wàllum cancer jamono ji li fi nekk ci ay xale yoo xam ne ñoo en cancer amul benn hôpital xam ne bu dul bii bu leen mën naa jël en charge mm, xale yooyu nga xam ne dañoo am cancer te ñoom xam nga nu ñu leen di fajee fii boo ñëwee benn forfait wu cinquante mille ngay def boo xësee fay cinquante mille ñoo lay jël en charge boo waree def ay analyse ak lépp dootoo fay ba ba ngay génn loolu amul benn hôpital bu leen ko fiy defal donc c'est tellement grave xam nga fi ne catastrophe sanitaire fa la mooy doon le responsable li mu li mu lan a xew après yi mais nañ ko tëj ba xool dañuy delluwaat jamono bañ tëjoon maternité wu bloc bi bloc bu maternité wu fii la xewoon gan ganay xale xale yi jigéen yu wër yi nga xam ne dañ doon kii doon matu la xewoon catastrophe yooyu fa lañ lu gën a garaaw loolu ci lañ jëm catastrophe sanitaire lay créé ci réew mi. parce que hôpital bu mel ne hôpital Dantec euh, bu ñu ko tëjee dina am ay conséquences yu mu bàyyi ay njeexital. exactement ñoom ñoo ko gën a xam. xam nga njeexital yi mooy lan njeexital yi mooy d'abord formation bi day nërmeelu soin de qualité dootul am mooy ñi ñi bëgg a faju dootu ñu mën a faju ndax Dantec li muy fajee tarif yi muy fajee amul fenn dana am ay malades yu bari yoo xam ne dootuñu at fañ fañ fañ leen war a dem par exemple oncopédiatre du am service yoo xam ne dina leen mën a accueillir catastrophe sanitaire bi loolu la am na ñoo xam ne def nañ seen chimio ba pare xam nga chimio ba pare boo ko def ba nga war a boo opéré xam nga foo day defaat métastase da ngay ko mujj rek bañ a tudd waaye xam nga fa nga jëm donc loolu la ñuy wax catastrophe sanitaire bi mu war a jur malade yi ñu di dox ñoom ñëpp kenn xamul da ngay ñëw ñu lay renvoyer di génnee ñenn ñi ñoo xam ne waruñu leen di génnee dem leen ñibbi koo xam ne ci métit la nekk nga koy génne loolu di toroxal doomu aadama ci askan fi mu toll la toll redéploiement amut affectation amut formation bee nërmalu soins de qualité donc tout est à terre tout est à terre le seul responsable c'est le président de la léegi lan mooy seen plan d'action pour euh, sauvegarder vos intérêts. sunu sunu plan d'action moom ñu ngi koy concocté waat parce que def nañ fi ay conférence de presse askan waa ñu commencé di xam na élection yooyu taxoon dégguñu ñu mais ñu ngi ñu ngi ñu ngi leen di gis am na ñoo xam ñu ils vont ils vont nous rejoindre moo bokk na ci Guy Marius Sagna bokk na ci Dame bokk na ci Karim Xrum Xax bokk na ci Barthélémy Dias maire maire Dakar moom dafa war a wax kooku moom. indifféremment ñun lu ñu doon moom daf cee war a am donc askan wi rek ñoo war a jóg parce que lii seen wàllu wér-gu-yaram la ngir ñu fajal ko seen bopp xam nga bu doon tax dañ naan ay quelques personnes lañu léese ñu dem toogi seen sor mën na métier ah parce que manque de respect la mooy nit ki nga koy liggéey da nga ko a fay mais li ci tege moo wér-gu-yaramu askan wi loolu moom ñëpp la ñor ñëpp ñoo ci war a ñëpp ñoo ko war a taxawee. Manga Ngom Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. maa leen di jaajëfal. may fàttali ne yow yaay porte-parole au collectif pour la défense et la sauvegarde euh, des intérêts des travailleurs de l'hôpital Aristide Le Dantec. maa ngi lay jaajëfal.